dire il faut que les, lois de euh, euh, Mohamed Bazoum ne sont pas respectées, ni euh, ni, le présent sortant Mohamed Bazoum, alors que vous au Sénégal, il y a un leader politique qui est encassé, qui est en prison, il est en état grave à l'hôpital et vous ne pouvez pas parler de ça au lieu de parler de, du Mohamed Bazoum. Tu sais comment c'est contradictoire l'actualité, nous, nous, nous, nous, nous, nous, maintenant les autres pays dañuy commencé di ñu parce que ñun nous munoo nit euh sa yére dafa tilim alors alors que yow sa bos moo tilim dem di yéré jambour alors que yow li nga nous kër ga mi parce que nous ngi dafa tilim yow da ngay commencé ba mu set mo présentable nga dem di jappalé keneen mu mais yow salté sa di naan da ngay dem fobeere këri jàmbur. Mm. mooy maanaam Sénégal lu mu lu mu bëgg def ci Niger dem di eh, eh, eh, comment dirais-je xeex xeex benn Niger boo xam te xeex boobu moo moo ko ngay bàyyi fii lu tilim. ngay dem di di di mais dina ah? signé pacte CEDEAO yi CEDEAO Sénégal tey la respecté CEDEAO. Mm. Sénégal CEDEAO ñaata fois la ne Sénégal l' état du Sénégal a tort. contre un opposant politique ci affaire judiciaire Il ne respecter doo respecté loolu CEDEAO lan la wax ci ay ay affaire parrainage nga ne xolo ci lolu en légui yo guerre nga bëgg légui yo guerre cda bu la ne demal guerre yo légui yo da ngay dem guerre quoi parce que yo guerre nga bëgg guerre nga nam il faut arrêter c'est une Fallou on fait pas la guerre aux frères africains bu fekkee les européens man maay gis ci yéenekaay euh, étranger ni que des des des commandrages euh, euh, des puissances comme mel ni Russie ak Chine dañoo bëgg a installer des centrales nucléaires en Afrique pourquoi pourquoi pourquoi c'est des centrales nucléaires en Afrique ci ñoom ñu bàyyi seen dëkk di ñëw c'est comme si il y a une guerre qu'il prépare en Afrique. ok c'est clair mm. alors dañuy daal di jàll exactement si ba tey si kaw mm. Ousmane Sonko Bamba. nous avons euh, exactement si que nous bu Nous avons dit que nous dit si dit que di li nous dit nous une bu am euh, un proche du leader de l'ex-Pastef confie sa euh, clinique s'est davantage dégradé entre le 14 et le 15 dernier dit que le 14 bi ñu le 15 bi euh, ñaari fan yi li nga xamné que modi état de santé bu Ousmane Sonko dafa jéggi dayoo lool lol lol lol lol alors euh, mom li nga xamné que modi sus mu mm, vers la réanimation euh, jëm ci ki nga xamné que modi di de Pastef di ki nga xamné que modi Ousmane Sonko alors donc l'état de santé d'Ousmane Sonko s'est davantage dégradé ces dernières 48 heures en tout cas aujourd'hui donc il est devenu très très faible manam Euh, mënutul defar dara li nga xam ne que moo di boppam car tellement que ni moom euh, jamono ji nangul lekk et que mi ngi daal di jàpp ni su duggee li nga xam ne que moo di réanimation euh, tey jii si ngoon du ko bett parce que tellement que ni quoi qu'on puisse dire li nga xam ne que moo di état dafa xaw a jéggi dayoo. Alors, euh, bon commentaire Def, Arfan. Euh, de plus en plus, on, a, on assiste par rapport à que euh, Alerti Nahamni Tamiram dans le sens de Msiki Nahamni Moudi Ousmane Sonko, qui ne coûte Ousmane Sonko. Euh, mais je ne préfère préférer garder Nahamni Moudi son anonymat. Adou Dadi Tamiram, Moudadi Japani. Et bi nii euh, Ousmane Sonko mi nek euh, si état bu xaw doy et que son ñu ko nee fii ngoon wala suba Ousmane Sonko réanimation du ko bett. bon sentiment comme sénégalais yëpp la ama ah. c'est-à-dire que en dehors d'être journaliste wala en dehors d'être euh, kenan ak kenan, mais da ngay am sentiment humain. Hmm. comme ñëpp parce que man souhaité wu ma kenn kaso. souhaité wu ma kenn mu dem bay nekk ci réanimation souhaité wu ma surtout ku mel ni Ousmane Sonko ak ñeneen ñëpp. man su ma sañoon ñu nekk ci kaso bi yëpp ñu génnee leen. su ma sañoon ñu nekk ci euh, hôpitaux yi yëpp ñu wér. donc bu fekkee euh, dégg nga ni sa naataangoo euh, sa compatriote wala sa moromu jullit mu ngi ci état bu mel noonu ci loo xamante ne ñoom dañoo jàpp ni jaay doole la franchement da ñaan. pour mu jógee ci loolu boo hmm. jullee nga ñaan ko wala nga wax un message à l'état du Sénégal il faut que nous jël des devant chaque fois on kaddu yu mel ni lañ ñuy wax mais ñoom dañoo jàpp ni peut-être que ñoom euh, ils sont tous dans le temps de la politique des calculs politiciens Ousmane Sonko Boko que beaucoup bayer mu il faut arrêter ces calculs politique nekk président wala nek ministre yalla moo koy maye nit ci jëm la koy bind bés bu mu juddoo ba Ousmane Sonko génnee ko ci kaso bi wala génnee ko ci pri commandés hôpital bi nga bàyyi ko ak sago mu dem xool fu muy faju jee wala nga bàyyi ko mu lekk lekk yoo xamante ne ñam yu jógee këram parce que maa ngi dégg ay témoignages yoo xamante ne dañ lay ne même buñ fa yóbbee lekk duñ leen bàyyi ñu gis Ousmane Sonko duñ leen bàyyi lekk yooyu dugg ils sont obligés de retourner à la maison avec lekk yooyu. Hmm. au nom de quoi lan moo ko jar lan moo ko fi jar fii ci Sénégal ci àdduna bu jeex bi ba pare lan moo ko fi jar. lan moo ko fi jar politique du question politique mooy euh, politique du métier hmm. politique encore une fois du métier beaucoup na ci loo xam ne dafa Sénégal politique moo tardé Sénégal politique moo yàq valeur Sénégal Sénégal dafa amoon ay valeur dafa amoon ay valeur yoo xamante ne ay ngor ay gor ay gor ñoo nekkoon fii ci Sénégal mais gor yooyu yëpp a ñoom ñëpp a dem instant ni benn góor desatu fii. looy insinué foofu noonu. non mais non xamal lu tax ma ne la gor au Sénégal dix ans de cela wala quinze ans si ginnaaw doy dëgg ay yeneen fee yoo xamante ne mu ngi xewee euh, tey ay gis nit di tuumal nit euh, comment dirais-je euh, daf ma siif daf ma xojañal te ba pare taxaw ne leen man maa doon kaf. loolu yëpp ñu tegoo ko na leen France daal di ci dem nga gis ay nit taxaw kilifa taxaw ci média ci télé caméra braqué ci moom mu ne nañu rey di di diw nañu tëj diw bu bu fekkee nit dinañu empêcher candidat diw dinañu jël ay gaz yi wàcce ci nga yooyu woon day daay day dëgg zaari kaddu yooyu léegi ngay dëgg nit day toog ne la man maa waxoon lii mais wax ma man maa waxoon waxet léegi ngay toog actuellement ci Sénégal ngay gis. ay xale yi jigen di def naka du dul ci les réseaux sociaux te kenn du wax kenn du leen tëj dégg xolal kérok le 15 août lu xewé feulé ci ci sali mais kenn waxu ci parce que ça ne les intéresse pas les autorités bonnes autorités mais parce que eux ils sont ils sont dans la politique effet privé et effet buy yàq société citoyenne mais ah. société bi ah, est eh, bon mais écoutez cest à non non non non non non non non non bi dafa am règlement des valeurs c'est des anti anti-mœurs dafa dans ce pays fois Il y a des anti-mœurs des lois anti-mœurs dans ce pays bu fekkee ay xale kenn bañalulu kenn dem sali maintenant bu faites ñoom dañuy publier seen vote seen du bopp du ko ci les réseaux sociaux encore une fois vous parlez de Baye mu où est les anti-mœurs encore ah, euh, les lois anti-mœurs dans ce pays alors enfin ba parlez may c'est dit privé aujourd'hui on est en train d'emprisonner des jeunes yoo xamante ne et d'une wax ça kii lii la def il suffit mais ne la non membre Pastef la ni jàpp la. ok alors. nous euh, ne da nga de ci ci manifestation interdit aujourd'hui des gens font ce qu'ils veulent dans ce pays kenn de leen jàpp de du dara au nom de quoi foofu la ni waxee où est la clémence où est comme adresse justice bon xamante de faute de njaaxanaay dans ce pays mais amul. mais pourtant il faut qu'on respecte la justice mais à ah, respecter la justice commence même par l'autorité l'autorité mondiale respecte la justice pour que ñu nekk souffre en bas de l'échelle nous mën respecte respecter la justice maintenant vous bu que la justice dafa épinglé en fille ay une ci rapport des cours de comptes bientôt ça va faire un an les leen noirs ñu ne la ça est encore pourtant bu ñu bëggee jàpp Ousmane Sonko. ñu def nous ñu def fat fat fast track ñu jàpp waa ji bu ñu et c'est ay Serigne Bara wala bu ñu bëggee jàpp Pape Alé pourtant xaar ñu justice mu tourner continuer ci euh, recherche dañoo jakat jakate jàpp nous tëj leen maintenant le rapport des cours de compte boo xamante ne le rapport est quasiment bouclé kenn du ci wax ça ne nous intéresse pas parce que xam nga lu tax ñu mu épingler soit tu ministre soit tu directeur général wala si après mouvance présidentielle nga bokk moo tax benn nit du la jàpp alors que on continue de ne ñun ci état de droit la ñu nekk ñu bëgg a gëmloo nit que. ñun jàpp bu ñu jàppee Ousmane Sonko jàpp bu ñu jàppee Cheikh Bara Ndiaye jàpp bu ñu jàppee le journaliste Pape Alé Niang ak ñeneen ñoom Hannibal Djim jàpp bu jaadu la mais non mënoo fexe ba Sénégal yi gëm ni jàpp bu jaadu la parce que xamalu tax bu fekkee jàpp bu jaadu la dina jàppale ñeneen ñoo xamante ne rapport moo leen épinglé dina jàppale ak ñeneen ñoo xamante ils ont appelé à l'insurrection dans ce pays ñoom Moustapha Diakhaté ne dinañ ku ñu war a rey ku ñu war a jàpp dinañ koy. tout ça ñu ngi kii nit ku bëgg a baare monsieur le président ak kan troisième ñu jël ay jaas yi ay député ñoo ko fi waxoon mais est-ce que yoon jàpp nañ ñooñu est-ce que con yoon convoqué na ñooñu ñoom Ahmed Suzanne Camara ñoom Boubacar moom Mouhamadou Mansali kan moo leen convoqué mais dara ay journalistes yu mel ni Cheikh Yérim Seck ñuy taxaw ci média di leen pour instaurer l'état de droit. si même s'il faut tirer 90% des Sénégalais pour que les 10% continuent de vivre dans l'état de droit, il faut le faire. Okay. L'on ne s'est pas appeler à génocide ou guerre civile. Est-ce que Diap Nanilan, est-ce que si le urbain wana si yerim sek nako yoy, est-ce que ya yako wa, mouk afre moune ko ci langa ko teg, nbaye wax lolu. Mais amul, mais pourtant Diap Nani fi ay nit ñom Bassirou Diomaye, fe ñom